wasallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alkiram wa taabiina wa man tabiahum bi ihsaanin ila yowmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiix gannaaw loolu ñoo ngi jaale mbokk yëpp sunu mbokkum jullit moomu nga xam ne moo fi jógee mooy Sidi Lamine Niass al Maaruuf am na ko yàlla jéggal te dugal ko aljana euh, yal na yàlla def bu mu am benn fitna ci kanamam yal bu mu fitna itam ci gannaawam euh, xam ngeen ne lu xili xew nii ci génn àdduna ak benn nit boo xam ne ku ñëpp xam la mu amee ci anam ngoo xam ne bu bu bette la bett ñépp loolu dañ koy faral di fàtte rek waaye noonu la mos di doxe dara changé wu euh, benn boroom xam-xam day wax ne ñun ak àdduna duñ ko comprendre parce que moom ñun dañ ko bëgg lool loolu moo tax li mu ñuy wan ci ay melokaanam yoo xam ne day tax ñu jógee koo fi duñ koy gaaw a duñ koy gaaw nangu waaye li xew nii moo xewoon démb mooy mos di xew borom bi subhaanahu wax nañu ci alquran pour xamal ñu dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy àdduna ci aaya yu bari ci alquran nga xam ne li ci ëpp buy jeexal wax ja day wax ne wa mal xayaatu dunya illa mataawul xuruur day wax ne dund àdduna neena na yóbbal la boo xam ne day wore nee na yóbbal buy wore la ay yu bari borom bi subhaanahu taala mu ñu koy jàngal ci alquran ci melokaanu àdduna te buy jeexal noonu la koy noonu la koy jeexalee ay bii ma doon jàng ci suratul hadid borom bi subhaanahu taala man ko tàmbalee ci ilamu annama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zina ilamu annama alxayaatu dunia laybun wa lahwun wa ziina na ngeen xam ne àdduna dund àdduna dafa am ay melokaan njëkk mooy mu tuddee ko ne dund àdduna laayibun la laayib laayib mooy loo xam ne ay nit dañ koy def buñ paree jëlee ci coono te du amul benn njëriñ comme ay xale yu toog fële di fof seenum fof buñ paree sonn lool ñax tooy xib te loolu duñ ci amee benn njëriñ yàlla ci laay ji nee na àdduna am na ñoo xam ne nii la mel ci ñoom laay bul mu ne wa lahwun nee na àdduna am na ñoo xam ne ci ñoom àdduna lahwu la lahwu mooy loo xam ne doo ci jëlee sax coono boo ci nekkee doo ci jëlee benn coono waaye soo paree nga perte temps bi nga xam ne ci nga waroon def lu la jural njëggalal yàlla lu mel ni yéen doo dam yi amul coono toog di mariage amul coono soo paree boo boo doo doo am xaalis xëy na doo am coono mais temps bi gën a cher nga xam ne ci nga waroon a liggéey lu la yóbbu aljana foog nga koy perte yàlla mu ne am na ñoo xam ne nii lañ nee ci àdduna lahawun ñoom ci loolu lañ nekk mu ne wa ziinatun am na ñoo xam ne ñoom dañu defe ne àdduna tuwaaletu rek mu jeex tuwaaletu rek waxtu bu nekk yaa ngi sañse rek sañse la am ñoo xam ne ñoom àdduna jàpp nañ ne àdduna pour sañse rek la mu jeex la leen bokk ci mu ne wa tafaaxurun baynakum am na ñoo xam ne dañu jàpp ne àdduna puuga réewu la puuga réewu euh, am ñoo xam ne defe ne àdduna maanaam góor-góorlu am dara la fexe ba am dara ñëw jaay ko sa morom puuga réew rek maa la gën askan maa la ëpp lii maa la gën lii waxtu wu nekk ñu ngi delloo ci seen bopp loo xam ne dañ koy jéem a ni jàpp ne ñoo ko gën nit ñi mu ne am na ñoo xam ne fu ñu toll loolu ci lañ nekk ci àdduna wa tafaaxurun mu ne wa takaasurun fil amwaali wal awlaad mu ne am na ñoo xam ne ci àdduna dañoo jàpp ne àdduna lijjanti lijjanti fexe ba am alal tiituroo alal ji ci kaw ñi nga xam ne dañoo ñàkk wa tafaaxurun fil amwaal nee na am na ñoo xam ne euh, imaamul Qurtubi dafa wax ne wa takaasurun fil amwaali wal awlaad mooy koo xam ne day dem wuuti alal mu jaral ku lu nekk wuutee ku nu daganut ngir ñëw man koo tiituroo ci kaw jaami yàlla yu baax yi na am ñoo xam ne àdduna jàpp nañ ne noo mën a def amal alal rek ndax alal jooju moo lay jox nga mën a nekk ci biir dëkk bi man fi imposé man fi am ñu la topp yàlla mu ne lii yépp am na ñoo xam ni nii nii lañ jàppee àdduna ci misaal bi ko yàllay misaal ci àdduna ni muy naxee nit ñi yàlla nekk masali xaysin ajabal kuffaara nabaatuhu nee na daa mel ni àdduna daa mel ni benn taw bu mag bu taw gàncax gi sax naat lool ba borom tool bi bi nga xam ne mooy kuffaar bi kufaar naa mooy baykat zurra kufaar day firi yéeféer mais fii ci laay ji kufaar baykat lay firi parce que kufaar baykat maanaam ñi ki weddi yàlla soo gisee ñu ko tuddee ko kaafir parce que dafa niroo ak baykat bi lu ñuy def waa ji bay day jël aw jiwum dugal ko ci bisu suul ko sul googu muy sul moo tax ñu ne ko kaafir ki weddi yàlla itam kaafir la parce que dafa sul jëfu yàlla maanaam yàlla daa def ba noppi mu suul ko ne ko du yow moo tax ñu ne ko kaafir ñoom ñaar dañu moo tax kufaar bi mooy baykat bi yàlla nee na àdduna daa mel ni benn taw bu mag boo xam ne daa taw suuf si tooy baykat bi ji gàncaxam gàncax gi génn naat lool ba bu ko gisee kontaan loolu ni muy mel ci xelu baykat ñu toog ba yàlla yàlla yàlla mu ne summa yahiiju ñu toog ba mu yàgg gàncax googu tooyoon commencé di di wow ma yahiiju mu commencé di wow fa taraahu musfarran nee na borom tool bi kontaanoon ci tool bi muy xool tool bi tool bi commencé di di jaune di gel di wow ba commencé di xonq mu di ko xool summa yakunu xutaaman ba mu yàgg mu nekk matt nekkam boob nga xam ne soo ko taalee sax mën naa takk yàlla nee na àdduna nii la mel mbokk jullit ñi xoolool boobu la misaal maanaam nit day toll foo xam ne daa mel ni gàncax gu naat mais li koy yóbbu fi mu bëggul dem su ñëwee li ko yóbbu moom xool rek la ci man mënu ci dara li ci gën a tuuti mooy bu màggat ñëwoon war laa màggat loo nga ne doo màggat ngay bañ xoolal àdduna bi ñi nga xam ne day màggat day ñëw nuyu leen ñu lànk lu leen dañ ko daj seen bopp du tere du tere ñu màgget lu leen dañ ko daj danañ def lu ne ci na pour bañ a màgget mais foofu màgget yóbbu leen xoolal bu dee ñëwee waa ji moom ak i bokkam ak ñi ko wër ñëpp luñ xam ak luñ man dañ ko def ci waa ji pour bu mu dee mais ni baykat bi xoolee gàncax gi muy wow te du ci man dara mu koy xool muy xonq du ci man dara mu koy xool ba mu wow mën a tàkk te du ci man dara waa ji bu ko dee di yóbbu noonu lay mel xam nañ ci dara. nawet bi passé bi ku nawet bi commencé gàncax gi wow nit ñëpp lañuy xool gàncax gi am cu leen naqadi kenn du wax mais kenn mënu ci dara ñëpp toog di ko seetal yàlla mu ne àdduna noonu noonu la mel bu lay yóbbu yàlla ne la ca gannaaw àdduna après nag yàlla mu ne wa fil axira azabun shadid wa maxfiratun min ne wa ridwan mu ne àllaaxira ngeen jëm suñ demee àllaaxira ñaar moo fa nekk mooy mbugal mu tar yan ci yàlla musal wala wa maxfiratun min allahi wa ridwan njéggalal yàlla ak am ngërëmal yàlla nee na àllaaxira moom ñaar yi moo fa nekk ba pare ba laay day jeex yàlla ne wa mal xayaatu dunia illa mataalu xurur addunaa ngi nii loo ci mën a am soo ko bàyyul xel mu wor la ndax mënul bëri ba doo fi jóge ko mënul naat ba doo fi jóge ko loo ci mën a am ci àdduna yàlla mu ne soo ko bàyyee bàyyiwul xel mën na laa wor parce que moom mënu laa mënu laa bélloo ci àdduna mënu la fee saxloo juddu bu rëy du la fi bénloo alal ju bay du la fi bénloo mën a sañ si du la fi bénloo yii ñu tuddoon te yàlla ne am na ay vision la nit ñi gisee ko àdduna amul lenn loo ci mën a am ba tax bu lii ñëwee doo dem yàlla ne nii mooy àdduna borom bi subhaanahu wa taala waxateeg ñun ci suuratul juma ne qul inna al mawta alladi tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiku dee mi nga xam ne waxtu ween xëyee moom ngeen di bañ a dégg moom ngeen di bañ gis fa innahu mulaaqikum moom de fi ngeen jógee foofu la jëm da ngeen dajeeg moom waaye la ci topp moo gën a garaaw yàlla ne summa turadduuna ila aalimil xaybi wa shahaada te bu ngeen faatoo ki ngeen di dajeeg ëllëg ñu yóbbu leen ci moom aalimul xaybi wa shahaada ma mënoon naa tudd yàlla rek mais tur yu mu jox boppam def ne aalimul xaybi wa shahaada ngeen amal affaire koo xam ne daa xam li nëbbu xam li feeñ mënoon naa wax beneen tur mais daf ne su ngeen dee ki ngeen di dajal ëllëg koo xam ne la aalimul xëybi wa shahaada la fa yunabbikum bima kuntum taamaluun te daleen leen di fay lépp loo xam ne da ngeen ko jëfoon yàlla wax nañu loolu ci alquran moo tax benn taabiina bu ñuy wax fudaylu ibnu xiyaab nekk ku baax benn bés daa dajeeg benn waay nuyu wanteeg moom ne ko saawaay ñaata at nga am waa ji ne ko am naa 60 ans juróom benn fukki at am naa juróom benn fukki at ne ko Fudaylu ne ko kon juróom benn fukki yaa ngi dox jëm ci yàlla xam naa léegi nga jege parce que nit bu juddoo yaa ayyuhal insaanu innaka kaadihun ila rabbika kaadihun ila rabbika fa mulaaqihi nit bu juddoo rek day dox jëm ci jëm fa mu jëm te fa mu dajeeg moom mu ne ko kon juróom-benn fukki at yaa ngi dox jëm ci yàlla xam naa léegi nga yegg waa ji ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waa ji ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Fudaylu ne ko li nga wax nii mu ne ko ah mu ne ko xam ko moo gën wax ko maanaam xam lan la baat yi ëmb moo gën man koo wax waa ji ne ko man xam naa loolu mu ne ko lu lan lu und waa ji ne ko mooy man xam naa ne jaamab yàlla laa te itam ci yàlla lay del waa ji xam na ko Fudaylu ne ko loolu affaire bi jeexul foofu de ku xam ne jaamam yàlla nga te xam nga ne dinga dellu ci yàlla war ngaa xam ne di nga taxaw ci kanam yàlla ku xam ne dinga taxaw ci kanam yàlla war ngaa xam ne dinañ la laaj te ku xam ne dinañ ko laaj war naa préparer yan yan réponse lay tontu war naa tontu war naa préparer lan lay tontu. mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna xam naa ne yàlla moom te xam naa ci lay dellu affaire bi jeexewul foofu mais dellu ci yàlla war ngaa xam ne di nga taxaw ci kanam yàlla di nga taxaw ci kanam yàlla te yàlla dina la laaj te itam laaj yooyu faw mu am ay tontu kon tontu yi mat naa bàyyi xel fu day lu dal di jàngal loolu waaj waa jooy jooy jooy jooy jooy jooy jooy jooy ba mu yàgg mu fomp ay rongoñam siggiwaat ne ko yow ku baax yow sëriñ bi léegi kon affaire bi wamal xiila luy pexe mi Fudayl ne ko alxiila yasira pexe mi yomb na lool pexe mi yomb na mu ne ko pexe mi yomb mu ne ko lan mooy pexe bi mu ne ko dangay fexe ba da ngay fexe ba nga rafetal li la dese parce que yow am nga juróom benn fukki at yaa xam nag loo ca def ak ci loo ko passé waaye da ngay fexe ba li la dese nga rafetal ko boo ko rafetalee yàlla jëggal la li paase ak li nga dese waaye soo ñaawalee li nga dese yàlla jàppee la li passé ak li nga dese woon kon 60 ans juróom benn fukki at ku ko am ku nekk ku ko am ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wax na ko nee na nit su amee 60 ans yàlla may na ko temps bu mu mën liggéey aljana yëg na koo la yëgul ko juróom benn fukki at nee na ku ko am ci kaw suuf yàlla may na la temps boo xam ne mën nga ci liggéey loolu dugal aljana temps bi nag am nga ko mais est-ce que temps bi bokk seytaane foofu lay dugg moo tax mu ne ko comme am ma 60 ans te man jàpp naa ne virage nga 60 ans ku ko am neexul waaye boo virage tam lay des ci dund gi dootu bari 120 ans ku ko am li nga desee loo ci dool loo ci dolli doo ko yëg sax mu ne ko kon 60 ans boo ko amee da ngay bàyyi xel xam ne li nga dese li nga dese mën naa bëri waaye mën naa bañ a bëri nga fexe loola des ci 60 ans yi li la des ci sa dund nga rafetal ko yàlla ku baax la boo ko rafetalee moom mu jéggal la la nga paase woon ak loo ca mën a def jéggalaay li nga xam ne moom nga dese woon ndax borom bi ku baax la waaye su li nga dese boo ko ñaawalee yàlla jàppee la li nga paase woon en même temps jàppee li nga xam ne moom nga dese ndax yaa ko ñaawal kon a tawba a tawba tuub tuub rek. yàlla wax na ci alquran ne yéen jullit ñëpp tuubu ila allahi jamian ayyuhal muminuun tuub tuub mooy borom borom borom borom xam-xam yu mag yi nga xam ne dañuy defar ruuxu nit ñi di leen jàngal di leen yar dañuy wax ne tuub mooy tàmbalib yoon wi mooy digg yoon wi mooy mujjanteelu yoon wi maanaam soobu jëm ci yàlla nee na tuub mooy tàmbali bi tuub mooy digg yoon wi tuub mooy jeextalu yoon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñépp wax na ne tuubu ilallahi na ngeen tuub dellu ci yàlla man mi yàlla yónni ngeen xam sama gëdd sax atuubu ilallah fil yawmi mi'atu marra aw mi'ata marra danaa tuub dellu ci yàlla bés bu ne téeméer yoon danaa wax yàlla astaghfirullah moom yonent bi salaay salaam kon tuub tuub mooy nga xool li nga paase nga xool li nga paase nga jéem a xoolaat li nga dese xamoo ñaata la li nga paase moom xam nga ñaata la mais li nga dese mënoo ko compte mu ne lu mu gàtt gàtt nga profité defar ko rek yàlla xam nga ne bu doon ñaari fan la bu doon ñetti fan la bu doon ñeenti weer la li nga dese boo ci góorgóorloo doo ko sa digganteeg sa borom li nga yàq lu mu bari bari yàlla defar ko. loolu kullun yubaas ala ma mata loolu leen nee na nit lim mujjee rek lim mujjee rek loolu moo compte ci moom kon fexe ba ñu defaraat suñu sunu sunu taxawaay defaraat sunu Suleymaan ibnu Abdul Malik daa dajeeg benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax Aba Hazim aba haasim benn aalim zahid aabid la woon jaamukatab yàlla bu mag la woon nit ku dëdd woon àdduna boroom xam-xam bu mag la woon suleymaan ibnu abdul malik dajeeg moom ne ko man de am na lu ma la bëgg laaj sëriñ bi mu ne ko loo ma bëgg laaj mu ne ko waaw ñun lan moo tax ñu bañ dee bëgg àdduna lool te bañ de mu ne ko xam nga lu tax mu ne ma ne ko da ngeen defar seen àdduna tabax ko ba mu jëkk te àllaaxira tabaxu leen fa dara nit du bëgg a bàyyi fu mu tabaxul dara di toxu di dem ci foo xam ne amu fa dara maanaam loolu mooy problème bi dañoo maanaam àdduna dañoo jaral lu ne ci àdduna lu ne àdduna jaral ñu ne ko mais àllaaxira tuuti moo ñu ko jaral tuuti rek waa ji ne ko góor gi dama la bëggoon a laaj beneen laaj mu ne ko ban mu ne ko dama bëggoon a xam man lu ma am ban cër laa am ci yàlla mu ne ko ubbil bi yàlla bi ubbil alquran nga xool ko boo ko xoolee di xam foo tollu sa digganteeg sa borom loo luy fa sa cër mu ne ko ci wan saar laa koy fekk mu ne ko innal abraara la fi naim wa innal fujjaara la fi jahim inna al abraara la fi naim wa inna al fujjaara la fi jayim léegi nag yow yaa yaa xam ñi nga xam ne dañoo baax bu àllaaxiraa ñooy dellu ci xéewali yàlla yi kaccoor yi weddi yàlla si ay tërëm yàlla yàlla yàlla ne bu àllaaxiraa ñooy dem safara mu ne ko xoolal ci xoolal foo xoolal foo ci bokk xoolal foo ci bokk mbokki jullit ñi nañu gën a góor góorlu li ñuy waar ci ay ay ay xew-xew xew-xew yi yàllaa koy xewal te xew-xew bi ibro la maanaam yàlla daa bëgg ñu bàyyi ko xel rek li muy xewal ci kaw suuf yépp ci faatug ay nit ñu rëy indi ay catastrophe indi ay problème ci àdduna bi loolu borom bi subhanahu wa taala da koy def pour nit ñi bàyyi ko xel fàttaliku ko yal na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla jàppale ñu allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim wasalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sunek subhanaka allahumma la uhsi thanaan alayk anta kama athnayta ala nafsik wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa xaliluhu xayru nabiyin arsala arsalahu llahu ila alaalami kulli bashira wa nadira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi din ayuha almuslimun اوصيكم ونفسي المذنبه بتقوى الله تعالى وطاعته اما بعد فيا عباد الله وكما جاء الاسلام بالكثير من الخيم الخلقيه التي ينبغي على العامل ان يلتزم بها جاء أيضا جاء أيضا في المقابل بقيم, بقيم خلقية أخرى ينبغي على رب العمل الالتزام بها والحرص عليها في علاقته بالعامل وكفالة حقوقه المشروعة سواء أكان رب العمل هذا فردا أم مؤسسة خاصة أم قطاعا حكوميا أو غير ذلك ولعل من أبرز هذه القيم ما يلي bokk jullit yi gannaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala ci yonentam bi suñu sa bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñun ñëpp ñu ànd góor-góor ci lépp lu ñu mën a dolli ragal yàlla bu loolu jàllee xam ngeen ne jamono yi yépp suñu xutba yi ñu ngi ko joyal ci wàllu liggéey fan yii yëpp ñu ngi doon wax teggin yi nga xam ne liggéeykat bi ci boppam war na ko am ñu wax ci ay teggin yu bari wax ci ay jikko yu bari yoo xam ne képp kuy liggéey te bëgg loo jëlee ci liggéey ba ci alal mu lew la da nga sàmmanteeg moom niki noonu tey jii itam ñu ngi ñëw di indi ay teggin yoo xam ne kii liggéey lu ci boppam moom moo war a moo ko war a am. moo xam kii liggéey lu kenn la wala entreprise la bu mu ci mën a doon il faut mu sàmmanteeg teggin yi ñuy bëgg a wax teggin yooyu bi ci njëkk mooy dafa ujratil amil ujratil amil dafa ujratil amil mooy kuy liggéeylu da ngay fay kuy liggéeylu ki lay liggéeyal bu liggéeyee li nga ko santoon da koy fay li ngeen mooy fay salaire u liggéeykat loolu mooy ak bi njëkk bi liggéeykat bi amal ki muy ki te mu fay ko ci saas du ko wax demal ba suba du ko wax demal ba gannaaw suba euh, kon salaire benn ponk la ci yi dox diggante kiy liggéey lu ak ki koy liggéeyal wa qad amara al islaamu bi i'taa'i ajrahu fawra intihaa'ihi min adaa'i amali l'islam dafa sant kiy liggéey fukk fukk ki koy liggéeyal li muy def rek mu ne ko am loolu nag lu jafee liggéeykatu jamono tey la xaysu yaqul azza wa jalla fi shani al maradi fa in ardaana lakum faatuhunna ujurahun alquran nee na su ngeen dee nampal lu seen doom di fay ki leen koy nampal bu nampalee ba pare rek fay ko xam ngeen boo takkoo jigéen bu ko neexee mu nampal doomam droit la ci moom du devoir àq la ci moom bu ko bëggee nampal ko yaay ji su ko neexee mu ne damay nàmpal sama doom waaye su ne bëgguma koo nàmpal parce que damay sëyi feneen comme wàcc nga ba damay ne mu feneen fu ma sëy soo bëggee mu nampal ko da nga koy fay loolu ci fiqh islam la loolu moo tax mu ne bu fekkee nàmpal nañu leen seet doom na ngeen leen fay loolu alquran yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci bu wér. ne aatul ajira ajrahu qabla an yajuffa arab yont bi nee na fayal ouvrier bi li ngeen digge woon balaa ñaqam wee woow liggéey bi jeex na wàcc na lu jar a bàyyi euh, min man manaa aja ujrata al aw ankaraha bil muxaasabati yowmal qiyaama bil muxaasaba yowmal qiyaama l'islam borom wala borom bi tabaraka wa taala mi ngi tëkku mi ngi tëkku liggéeykat bi ñu liggéeyal ba pare te nangu la fay yowmal qiyaama mi ngi koy loolu ci hadis ko kon ñiy liggéeylu ñu bàyyi xel moo xam kii liggéeylu individu la moo xam entreprise moo xam état la képp koo xam ne yaa ngi liggéeyloo ay nit ñu liggéey liggéey ba ba mu jeex wala ngeen nga leen di fay ci temps ci ci semaine ci journée ci weer journée bu dee journée jant sona bu dee semaine semaine bi jeex na bu dee weer weer wi dee na te fay loo ko ba mu sonn ca ba mu sonn ca bay ñaxtu yàlla tëkku na la yàlla tëkku na yowmal xiyaam ndax yàlla nee na salaasatun ana xasmuhum yowmal bi summa wa rajulun baa xurran fa akala samanan wa rajulun istajara ajiran minhu wa lam yuti ajran ñett yi yàlla nee na dinaa xulóog ñoom yowmal qiyaama xam nga yàlla ku mu xulóog yowmal qiyaama di nga am problème waaw ah, yàlla ne ñett ñi danaa xulóog ñoom yow mu wor ma c'est-à-dire ma dénk ko ma ko dénk ko confiance joxuma ko ku wala koo xam ne baa xurran fa akala samana koo xam ne dafa jaay gor lekk njëgam loolu bunt bu yaatu jaay gor lekk njëgam jaam jaam yi lañ naan jaay gor nag kenn du ko jaay waaye jaay gor fa ay waxiin la déggiin la mooy ñu bëri dañ koy def ñu bëri koy am na ñoo xam ne ay courtier lañu doon am na ñoo xam ne misaal benn entreprise boo xam ne dafay dox diggante liggéeykat yi ak ñiy liggéey léegi au lieu mu nekk marché direct léegi yow damay dem inscrire ci agence bi agence bi mooy mooy moom moom moo lay wutal foo liggéey léegi kii liggéeylu ci agence bi lay dem ne damaa bëgg ouvrier bu mel nangam ci condition yu mel nangam léegi mu fixé ko prix ne ko ouvrier bu mel noonu su la liggéeyee les weer da nga ko fay trois cent moom. mu ñëw proposé ouvrier bi deux cent mille donc moom am na cent mille moom agence bi mu ngi ci Sénégal nit ñi dañ koy def sous traitement sous traitement moo rey xale yi léegi c' est très difficile xale yi am emploi direct toujours emploi intermédiaire la ñu am ci agence yooyu nga mën a dem ñoom ñu sous traité la mooy ñu dem wutal la place fayee ko sa salaire bi jox la ci tuuti loolu benn problème la boo xam ne jar naa réglé parce que même bu fekkee principe bi xëy na mën naa dagan en tout cas defin yu moom am na lu xaram mais dañ dul def loolu li ñuy def mooy dañ li dañuy fayeeku euh, entreprise bi ba pare yow ñu lay daw loolu loolu mooy baa xorran faakale sama wala boo bokk na ci bokk na ci bokk na ci baa xorran sama na mooy ñu ngi nii dëgmal ay élection trial yu bëri yu mel ni daan jaay ñu ngi pare ay groupe groupe mbooloo ne man am naa mbooloo boo xam ne danaa la jàppale danaa keneen comité de soutien comité de léegi danaa danaa def lancement wu comité bi bi sangam ci stade sangam stade sangam wala béréb sangam ma xëy daal di wër nit yëpp ñi ma ruusoon yëpp kenn ku ne ma ne la damaa am euh, daje bu may def sama benn kilifa damay seet si ma bëgg nga teewe ko fekk yow yaa ngi bëgg am nombre boo wane ne ce groupe lañ bokk ñooñu ñëw ngir yàlla ak dëkkandoo wala ñu ñëw ngir yàlla ak bopp fekk yow waxaale ngay doon ba jaay leen lekk seen xaalis loolu bokk na ci baa xorom bi ak sama kooku yàlla ne bu yombal xam danaa xuloog moom waaye ñetteel bi mooy koo xam ne day liggéeyloo nit ba liggéey ba jeex te nangu ko fay kooku ku mu mën a doon da nga xuloog yàlla yombal xam nañ ko bàyyi xel na ko ji liggéey du bàyyi xel na ko entreprise bàyyi xel na ko état bi bàyyi xel état bi coow li bëri na lool ci ñàkk a fay yenn indemnité yi ak yenn salaire te loolu droit la bu ñu amal ñi ñu koy séqal il faut ñu fay il faut fay ko parce que bu ñu ko fay liggéey bi du dox parce que doo am motivation mais il faut ñu fay ko parce que bu ko fay dañu xuloo yàlla yombal xel xam naa nag ki gëmul dekki moom loolu du ko dérange ki gëmul dekki tëg koo ko yombal xel du ko dérange waaye yombal xel am na quand am na de am na. am na te dana ñëw te bu ñëwee képp ku jiite woon am réew ba pare di liggéeyloo nit ñi te doo leen fay da nga régler problème boobu mu leer kon ñu bàyyi xel boobu parce que ñun ñëpp bu ñu matoon ay julli rek problème ñu am jeex problème bi bi ma bi ñu commencé xutba xutba yi ci aju ci liggéey ba léegi kenn ku nekk ci ñun mën naa seede ne nii l'islam wax bu ñu ko defoon problème du am société bokk na ci tey ñi nga xam ne rôle liggéeykat bi la ñu ne ko léegi del fay salaire yi à temps del fay salaire yi à temps surtout réew mu mel ni Sénégal nga xam ne nit ñi jour le jour la ñuy dund am na benn pexe yeneen réew yi da ngay gis benn fonctionnaire boo xam ne lu ne ci lu ne la ci dugg fu ne mu am fa as bu liggéey heure normale bu buy pare rek mu dem defi leneen bu dem mu dem bay wala mu def sénégalais moom bu xasee nekk fonctionnaire. bu xasee am emploi jeex na emploi bi rek lay lay sukkandi salaire bi dong la moo moo moo te salaire bu ko gën a garaaw ndax as soom soo xam ne moom dong ngay am du doo doole te doomu aadama soxlaa bi ba du seen yokk kooku vraiment jar naa kooku di tardel salaire am ba muy def dix jours wala une semaine wala un mois c'est très grave c'est très grave ñu ngi sonal nit ñi ñu leen di sonal parce que fii salaire yi da touché li nga pas touché dañ koy laal mais du dara boo ci jotee le trente balaa la cinq mu jeex takk te bu bu ñëwee ba ba diggante le cinq ba le trente encore da nga fay am yeneen soxla te soxla yooyu da nga parce que am loo foo ko jël fi nga ko li nga ko lebee salaire bi nga bu jumul à temps ñaari problème ngay am. da am problème mu soxla bu teew bi da nga am problème fay bor donc fu nekk la ñàkk a fayee salaire ñàkk garaaw ba mu Sénégal Sénégal moom vraiment nit ñi war nañu def effort pour di fay nit ñi li ñu leen amal à temps nit ñi amuñu benn réserve bu ñu am bu ñu mën a xaare moo xam ouvrier la moo xam ñëpp la nag maçon yeeg ñëpp la koo ci fayu rek rey koo ci fayu rek lay parce que kenn ku ne. li muy dund ci jour bi li mu li mu li mu koy jox ci bi la ko jox kon nañ bàyyi xel loolu te yërëm euh, liggéeykat yi ndax vraiment amuñ lu dul seen salaire yi te salaire yi ci lépp aju te salaire boo gis fukki nit ci la ñuy dund kon kooku ñàkk ko fay wala yëg ko fay mën naa indi fi ci société bu nekk. loolu mooy tomb bu njëkk bi nga xam ne képp ku am entreprise wala ngay lu war nga koo bàyyi xel na nga def lépp bay fay salaire yi à na nga fay def soo ko defut da nga xuloog yàlla yow al yàlla ñu jàll musa ñaareel bi mooy al adlu wal ihsaan liggéeykat dafay maandu boo amee liggéey di koy liggéeylu da nga koy maandu maandu nag principe ci lislaam yépp maandu moom ñépp lañ ko sant ñépp te maandu faasiwul lu nekk nga teg ko ci place ku ne nga jox ko xàqam maandu nu róowul ak yamale yamale mën naa bañ a jur maandu maandu kon mooy ku nekk nga jox ko àqam moo tax mu ne inna iqamata al adli bayna annaasi huwa al gaayatu min irsaalillahi arrusul wa insaalihi wal kutub pour nit pour doxal maandu ci kaw suuf mooy objectif bi tax yàlla yónni yonent yonent bi yépp li tax yàlla yónni leen mooy maandu am ci kaw suuf maandu am ci diggante yépp ñépp maandu ñépp jëfandikoo maandu yàllaa nga wax sóotu xadiid aaya ñaar fukk ak juróom laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna maahum alkitaba wal misaana lu tax li yaquuma annaasu bil qist yàlla ne maa yónni yonent yi bil bayyinaat jox leen tegtal yu wane ne ñoom ay yonent lañ wa anzalna maahumul kitaaba jox leen ay ay législation jox leen ay ay constitution ay législation ab téere bu leen di wax nit ñi li ñu war a def mooy lan ak ñu koy defee wal misaan ma jox leen pouvoir kon kitaab wal misaan bu ci ñaar bu ci benn manqué rek dara du dox waaw kitaab ak misaan kitaab mooy législation yi mooy téere bi ñu fi teg nga xam ne mooy ñu wax fi war a jaar moo ñu wax fi ñu war a jaar lu ñu jaar jaaree misaan mooy pouvoir mooy kàddu bi nga xam ne kilifa da koy am ba kum ne jaaral fi nga jaar. yooyu yëpp nag li yeqoo mën naa su bil qist ndax nit ñi nekk ci jub nit ñi maam loolu mooy problème bi mooy réew yu bëri bu ñu amee constitution bu baax du ñu am njiit yu maandu bu ñu amee njiit yu maandu du ñu am constitution bu baax kon nag jullit ñi li leen sant wala li tax yàlla yónni yoon ci mooy joxe législation yu baax waaye jox pouvoir ay nit yoo xam ne ñu maandu lañ doon ndax nit ñëpp maandu bokk na ci liy wane ne maandu lu am solo la mooy yàlla ci boppam dafa araamal ci boppam contraire u maandu te mooy tooñ mooy ñàkk jub maal yàllaa ngi wax ci hadis wa ma ana ma ci alquran suratul qaaf aaya 29 wa ma bi zallamin lil abid yàlla ne man du ma tooñ ay jàmm du ma tooñ waaw mu wax ci beneen beneen hadis in yaa ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu yéen jàmm man damaa araamal tooñ ci sama ko te su ma neexee tooñ parce que man kenn yilifu ma kenn moomu ma du ma inconditionnel kenn man la neex ma araamal sama bopp tooñ kon nag yéen tam bu leen tooñal parce que yéen amu leen àq ci tooñ yéen amu leen droit ci tooñ man mi ci am droit sax du ma ko def kon bu leen tooñ kon nañ bàyyi tooñ tooñ nag dama bëri ay façon su dee ci wàllu liggéey danañ ci ñëw ci kanam incha allah kon ñu bàyyi xel ne ñaareelu euh, point bi nga xam ne képp kuy liggéeylu war nga koo bàyyi xel mooy képp kuy liggéeyu war nga nekk nit ku maandu danañ dellu si léegi wax maandu boobu lana koy jëmmal incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhi wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin wa baad ayuha alikhwatu almuslimun وللعدل والإحسان هنا من قبل رب العمل صور كثيرة منها maanu suñ ko waxee te jublu ci kii liggéey am na ay mbir yu bëri yu ko mën a jëmmal ba ca njëkk mooy almusaawaatu bayna al ubaadi fi xusni taamuli wa fi badli mooy nga yemale ouvrier yi ci jëflante gi ngay jëflante ñoom bu ci def ségrégation na nga jëflante ñëpp jëflante bu jub na nga yemale na leen yemale ci loolu na leen yemale ci jox leen seen i droit aussi bul def bul def ségrégation ci ñi ngay liggéeyal bu ci wut ay xarit ak ay mbok mbokk bàyyi ci des comme liggéeyee leen boole na leen liggéey boole ñépp ñu bokk lu ñuy liggéey bokk nuñ koy defee na nga leen yemale ci sa kanam yemale leen ci sa aajo yemale leen ci sa ci sa cofeel te nag bu ci def benn benn ségrégation waaw su ko defee yambagi an yaqula lil muhsini minhum ahsant wa yukaafi'uhu ala hada al ihsan wa yaqulu lil musii asa'ta wa yuaqibuhu ala hadihi al isaati ida kaanat maqsuuda mutaamada su ko defee ki def lu baax na nga ko xamal te neexal ki def lu bon na nga ko xamal te daan loolu yemale ci ñëpp yemale ci ouvrier yëpp loolu mooy tax ñiy def lu baax sawaral continuer def lu paax ñiy def lu bon bàyyi waaye su fekkee yemale woo leen ci euh, gërëm leen ci liggéey bi yow da ngay dem gërëm ci yaafus bi xa euh, xarab jàmbaar su boobaa ki doon jàmbaar day tayal wax naa ci xutba bi passé wax naa ne bëri na ay entreprise yoo xam ne la ko daaneel dëgg-dëgg ci jëflante chef d'entreprise bi la ak ña liggéey la ña fa ña fa ña fa jub da jub ga da leen jëriñul dara ña fa dëng ndëng te ga da leen dara ñëpp far dëkk ndax su fekkee kii jub ci entreprise bi te mooy kii ñëw wax di liggéeyam liggéeyam correctement du du naxasaale du du caaxaan du ca boole yu ci bokk du ci sàcc su fekkee kooku loolu jëriñu ko te mooy jëriñ ni mu koy jëriñ moo mu koy jëriñ mooy bu avancement amee mu avancé ba ñëpp xam ne li ko tax a avancé mooy njubam gi waaye nga dem jël yambar mi nekk ci entreprise boo xam sa jarbaat la wala sa doom la wala ku ku la neex la nga jël ko teg ko ci sa pegg teg ko ci kaw ñëpp te ñëpp xam ne am yambar la bu avancement jotee mu avancé loolu soo ko defee entreprise bi tas ko ndax kenn du fi liggéey kenn du fi jubati amul prix njub ko amul prix kenn du ko def. kon loolu ñu bàyyi xel bu baax a baax kon yamale diggante liggéeykat yi farata la ci képp koy liggéey su ko defee nag ñi wuute moom wuute nañ ñi yamul lu ñuy liggéey yamul lu ñuy liggéey waaye ñi nga xam ne dañoo bokk lu ñuy liggéey te yem ca ñooñu na leen yamale ci traitement na nga na nga leen ubbil sa kanam ñoom ñëpp na nga leen ñemeloo sa bopp ñoom ñëpp na nga leen wan yërmande ñoom ñëpp na nga taxaw ci seen i soxla ñoom ñëpp na nga leen di jox ay seen seen droit ñoom ñëpp loolu mooy tax entreprise bi ku ca nekk sawar mu continuer boo ko deful yaa yàq sànq ñaareel bi mooy ñuy wane ne maandute mooy almusawaatu baynul ammaali fi takalif bil amal mooy liggéey bi nga bañ cee wut ségrégation am liggéey yu métti ñoo xam ne ñii nga koy jox am liggéey yomb yoo xam ne ñii nga koy jox loolu day yàq entreprise surtout bu fekkee ñoo yem catégorie fekkee liggéey bi ñoom ñëpp ko bokk bul tànn ay xeetu liggéey di tànn ay xeetu nit dina ko jox bàyyi leen ci des am na ñoo xam ne seen entreprise bi mën nga wax ne bu dee bu dee cent employés ñoo fi nekk quarante yi dong ñooy ñoo ñooy liggéey normal soixante yëpp dañ leen dañuy nax saal dañ leen fay teg rek ñu fee ko ay salaire waaye duñ leen defloo dara wala luñ leen loo bu amee défiance kenn du leen ci dara su ko defee garanti yi dañuy bund xataal sonal leen duñ leen may fu ñu lekkee seen añ sonal leen lool ba pare tudd loolu day yàq entreprise loolu day tey loolu nit te tam day tax du sawar ci li muy liggéey ñetteel bi mooy tawalli nazar fil mazalim al ummar wa tafaqudi ahwali mooy il faut ngay xool ñi ngay liggéeyoo ndax am nañ ay problème il faut te loolu doo ci xaar ñu la koy wax yow yaa war a am matu di gëstu ñi ngay liggéeyloo est-ce que amuñu problème su ko defee ngay anticiper di leen rek leen problème yi ci heure boo xam ne ñoom surtout ñu ko woon loolu leen di sawarloo dafa leen di sawarloo leen jox confiance ndax su fekkee yow da ngay xaar ñëw am na ñoo xam ne du bu fekkee da ngaa ñàngal sa kanam ba kenn ñemewu la nga xam ne booy romb boo boo boo duggee cànt bi booy dem doo nuyu kenn. kooku xam nga ne ku am loo jaaxle doo ko ñeme wax surtout su fekkee da nga fay nekk di menacé ku la tudd nga nga tax ko ku la ku la laaj nga droit am nga tax ko kenn du la wax su boobaa kenn doo xam soxlay kenn doo xam problème kenn su boobaa entreprise bi ci boppam mooy dellu gannaaw ndax ñi ci nekk ñu nekk à l'aise te itam seen problème yi am kenn réglé wu kon yow yaay war a def sa effort bopp ba xam problème yi nga xam ne. moom la ouvrier yi liggéey surtout seen diggante ñi leen chef parce que am na ñi li ñoo xam ne li ñuy def mooy buur ayut da ngay ñooy ay chef d'entreprise bi day nekk ku jub ku correct waaye intermédiaire personne intermédiaire yi c'est-à-dire responsable yi nekk ci ci diggante bi di jaxase rek ak di toroxal seen i nawle ak di leen sonal ak di leen xaj seen ak te kenn du la ko wax ndax duñ la ñemee boole ñoom parce que luñ la wax nga ne ah damay boole chef baax na su ko defee. di xaar rek mu def erreur ba nga tax loolu tax na donc ñu bëri ci ñi lay liggéey ñi ngay liggéeyloo ñu doo xam seen i problème parce que dafa am ku dox sa diggante ak ñoom di leen tiital di leen menacé ba duñu la ñemee wax seen kon yow yaay def sa effort bopp ba xam problème yi am ñeenteel bi mooy at tanaasub bayna xajmi al amal al matlub wa ujratu ñaareel bi mooy kenn ku ne na am ci ci ci salaire lu toll ni li muy liggéey waaw waxoon nañ daanaka jëñ nekk ci gannaaw mooy bu fekkee entreprise bi ay xeetu secteur yu bëree fi nekk waaw section yu bëree fi nekk section bu nekk dañoo ëppante ay grade liggéey yi dañoo ëppante ay grade kon na nga respecté loolu mooy ku def lu lu lu yelloo lu bëri nañ ko jox ku def lu yelloowul lu bëri nañ ko ko xaj loolu moo jaagu bul bul bul bul bul bul bul exploité sa ouvrier yi parce que exploitation boobu dafa xaraam yàlla ko sootu aaraaf ay ñoom ñett fukk ak juróom wala tabxasu naas ashya'ahum bàyyi leen salaire jàmbur yi ngeen di yi ngeen di wàññi ak seen indemnité yi ngeen di yi ngeen di nëpp ak seen euh, euh, retraite yi ngeen war a versé di ko versé gis nga fi entreprise yu bëri boo retraité rek ñàkk parce que duñu la te loolu farata la ci ñoom farata la ci ñoom parce que yaa ko liggéey may la ko ci sa salaire lañ dagg dar ba pare ci ñu bëri duñ ko versé ñu bëri bi ñu retraité lañ xam ne amul amuñu presque su ko defee nag fit na ñëw fit na ñëw ndax yow fi nga retraité fi la fi la say soxla ëppi amatoo salaire amuloo retraite loolu ku ko teg nit bu yombal sa da ngeen am ay ñor ci def waaw fii nag loolu la neex def parce que fii moom comme lu neex waaye def nit fii ku man sa morom dubal mais yàlla baax na yàlla baax li oustaz euh, euh, imam Fatal di wax bokk moom bañ dee ak jàpp waaye bañ dee jàpp bañ dee nga jàpp parce que yëf yi du yem fii bu yemoon fii dana am ñu sonn lool waaye du fi yem incha allah day ko réglé incha allah danañ dem foo xam ne dëgg rek dafay dox ndax ka ka yore foofu kenn mënu koo borom mooy borom bi tabaraka wa taala yoru yàkkam bañ dee jàmm rek lu neex waaye rek na def kon nañ bàyyi xel ñi ñuy dundal nañ bàyyi xel ak baaxul ak baaxul ak day bari na ku yor entreprise di def lu ko neex di di exploiter ay employé di doon fay seen salaire yu mat léeg-léeg sax dana fay salaire waaye dajale dajale dajale ba defee ne noo sa des rek yàlla na ko cëpp as feebar soo xam ne du wér te du dee lépp lu mu sàccoon ci salaire jàmbur mu def ko ci feebaram boobu wala ci feebaru doomam wala ci feebaru jabaram mu dem ba xaalis bi jeex mu door ko rey parce que bu la gaaw a rey xaalis bi dafay des ñu loolu da da da da doo dee léegi doo dee léegi yàlla ku mën affaire la mën affaire la il faut faire kon ñu bàyyi xel loolu bi ci toog juróomeel bi mooy adamu taklifi al amil min al amal bi akthar min al muttafaq alayhi bokk na ci ñu bañ a jëf bañ a liggéeyloo suñu en ah, suñu suñu surga lu ëpp li d'accord ak ñoom ci contrat yi bari na koo xam ne dafa nekk ci benn benn benn situation am chauffeur ñu jox ko chauffeur boo xam ne chauffeur bi heure sangam heure sangam la la war a la nga jël chauffeur bi napp ko heure bu la neexee nga woo goro oh, ngeen baal ma ci kàddu baal baal leen ma ci kàddu boobu li ma bëgg a wax mooy ku ñàkk solo koo am woo ko na yóbbu ko mu bàyyi ay njabootam du leen gis te amul sañul bañ loolu tàggalu ki entre ki ngay ki ngay liggéeyloo li contrat bi wax ne loolu la lay liggéey loolu la na ci ci lay yem leneen loo ko liggéeyloo dañ ca war a waxtaan ak moom ba bu nangu ko bu ca laajee xaalis nga fay ko loolu tam lu jar a juróom-benneel bi mooy nga am objectivité ci liggéey bi ni muy doxee mu am objectivité nga bañ ca dugal sentiment juróom-ñaareel bi mooy nga may ko àq ci jël congé noppalu nit daa am droit ci nopp am na ñoo xam ne fa ñuy liggéey ñu leen jox congé jamais duñ nopp lu jamais loolu daganu kon nit ki dafa am droit ci nopp lu kon ku ci yor liggéey boo xam ne ñi ngay liggéeyloo dañuy liggéey continuellement war na nga leen may diir boo xam ne dañ ciy nopp lu nopp lu boobu dañ leen ko war a fay parce que suñu leen ko fay du nekk nopp loolu moom xam naa ne soxna yi duñ ci bàyyi xel ndax jànq yi ñuy liggéeyloo jànq yi moom at bi yëpp la liggéey du am benn semaine bu ñu leen may ku ci dem ba sonn ne daa bëgg a nopp lu ñu ne ko kon duñ la ko fay loolu daganu loolu dagu dañ leen may jamono ju ñu nopp ndax boo xoolee ne sa doom yàlla mën naa nag bis mu dem nekk jàng feneen da nga bàyyi xel ci jàng yi ngay liggéey loolu juróom-ñaareel bi wala juróom-ñetteel bi te mooy bi ci mujj mooy man man xawu fatratan zamani munasiba li adaay waajibaati charia fii maqar al amal mooy ñun ay julli lañ euh, heure julli daf ñuy fekk fi ñuy liggéeyee ñu may ñii liggéeyal ñu may leen bu heure julli jotee ñu dem julli su fekkee liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne kenn mënu koo arrêté su ko defee ñuy may par groupe ñu julli loolu mën naa nekk mën naa nekk bu ñuy julli yéen ñi xaar leen bu ñooy ñooy loolu moom lu lu mënta ñàkk la ci réew boo xam ne entreprise ba fa nekk ab jullite ko jiite ay jullite fay liggéey war dañoo sóoraale loolu sooraale xam ne jullit bi daa am ak dafa am farata la ci moom muy julli julli ci seen waxtu kon bu heure ba jotee ñu may leen ñu def ko te bañ caa naxasaale nag war a am un quart d'heure nga dem def 30 minutes wala 4 wala 60 minutes loolu tam daganul loolu tam ñu bàyyi ko dal kon mbokk julli ñi yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla dëgëral yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm suñu réew mi yàlla yàlla sàmm njaboot bi yàlla na yàlla may dalu ak yëgu mën a nafaraat ci diine suñ ko nafaroon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 اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بالكتاب والسنة يا أرحم الراحمين اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت ومغفرتك أوسع منا وأجل اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تهلكنا بغيرنا wala ak xalaat sama bopp amiin amiin amiin اللهم لا تؤمنا بذنوبنا ولا ذنوبنا ولا ما بعد الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد من خاتم النار والخاتم المسرة ناصر الحق كلها براشد وعلى آله حق آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام loolu. amiin ah,